yow noo nekk ci parti politique sa président mu ne waxu mandat nañ ko teg ci suuf ñu liggéey yow nga ne président warul wax loolu di ko ŋàññ président signé contrat yu jaar yoon nga taxaw nekk président contrat yi mosuñu waru ko signé ñoo lànk ñu ngi seen rôle ñoo lànk ñu ngi seen rôle Guy Marius Sagna c'est un promo universitaire mu ngi ci rôle am mën nañ ko comprendre dañ ko ciy respecté mais Moustapha Diakhaté mënul ci taxaw ci loolu ba pare ne dafa ànd ak président. dafa loolu nag du dëgg loolu du dëgg ndax courant boo xam ne yow wax nañu la ne la euh, ñi nga xam ne amuñu dara di fay ba vingt cinq mille mille francs mooy yokk seen facture. dara du yokk seen facture ñuy fay vingt cinq à cinquante mille ñaar téeméer mooy yokk seen facture ña ca des nga xam ne am nañu moyen dañu am ay euh, lave euh, machine de lave pour fóot am. climatiseur ñooñu di lekk courant am alal état bi war leen fayal seen courant déedéet état bi du ko def dafay décider génne xaalis boobu dugal ko ci sénégalais yi nga xam dañoo ndóol sénégalais yi nga xam dañoo ñàkk ba sénégalais yi nga xam ne amuñu courant mu def ko ci ba ñooñu am courant loolu wax boobu yanu na maana bu ko neexee mu am position bu contraire mais mu wax ko ci biir parti bi waaye mënoo nekk ci famille génn di dóor famille bi di di wax lu bon ci famille bi Moustapha Diakhaté jël naa sénégalais en témoin boobu ba tey bi ci mujje mooy dimanche ci ITV ku ko déglu ci YouTube di nga gis ne opposant bu raw Ousmane Sonko mooy wax loolu du woon warul doon taxawaayam ndax moom dafa doon noonu kàngam ci parti bi kàngam nag boo xam ne président moo ko ko def parce que du ci njàngam du ci base politique am ndax Moustapha Diakhaté kenn xamul fu muy politiqué kenn danaan Touba laa dëkk Moustapha Diakhaté ne compte pas à Touba Cissé loo ko bañ-bañ di nga nangu ne am na nit mais Moustapha amul nit Moustapha Diakhaté amul base politique du affaire reconnaître président mo bëgg xam président moy nommé te buy nommé fay nommé ci loyauté ak confiance kon amone confiance ak loyauté ci Moustapha Diakhaté la loyauté ci Moustapha Diakhaté bu mu ba fi waji comme président defna bañu fal ko mom comme mom dafa jappané président mënatul donati ci aduna Moustapha Diakhaté commencé wan gannaaw président di def li nga xamné moy war confiance fumu amatul ak loyauté président jël ay nombal tankam ba paré wo ko ci jamm mu gëna continuer parti bi jël ses responsabilités dàq ko euh, mom ci bopam biñ koy def euh, muy diriger suñu mbootaay ci assemblée amulone ben représentativité président rek moko décider décidé lolu ay waxam la commission bi réunir c'est une commission légalement constituée prévue par les textes du li nga xamné euh charte parti bi lolu la loolu prévoir def nañu réunion bi nous xool nañu saytu lépp li mu doon nga xam du taxaw bu baax. Moustapha man dama koy mu ma c'est un homme instable mooy koo xam ne wérul daanaka parce que une chose et son contraire mënoo nekk ci parti au pouvoir di wax comme opposant loolu dalay wan nit ku wérul populisme populisme lolou Moustapha Diakhaté c'est un vrai populiste c'est un homme dangereux ku ku doy waar la donc motax tax ba tey moom ci ay gentam dàquñu ko ci parti bi waye Moustapha Diakhaté na dem ci na dem léegi ci këru parti bi mu xol wala dina xol kan mo koy convoqué ci réunion Moustapha Diakhaté bokkatul père on tourne la page pour Moustapha Diakhaté